mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah C3S compagnie Serigne Seck Sénégal gannaaw ba mu leen masawo ci mbas mi di covid 19 mu ngi rafetlu taxawaayu njiitu réew mi ak waa kër docteur yi ci wàll wi gannaaw loolu mu ngi leen di xamal ne lu jëm ci concours bi muy amal at mu nekk tudde ko yaatal mbindum alxuraan gannaaw ba mu amalee xaaj bu njëkk bi ñaar fukki fan ci weeru février 2020 ak ñaareelu xaaj bi fukki fan ak ñaar ci weeru mars 2020 mu desoon cérémonie bi a amal fukki fan ci weeru mai le 10 mai 2020 ca CICES ngir joxe neexalu candidat yi jiitu ci jongante ren ngi leen di yëgal ne dakkal na boobule cérémonie ngir sàmmonteeg dogalu njiitu réew mi di tere lépp lu xeetoog ndaje ci réew mi ngir wéyal li mu sàmmonte woon ak ndongo daara yi jiitu ci jongante bi jàppale leen ci tolluwaayu réew mi jury bi dina joxe résultat yi en direct ci télévision yi rajo yi ak réseaux sociaux yi dimanche fukki fan ci weeru mai 2020 bu 17h jotee lu jëm ci jàngoro ji nag C3S sàkku na ci mboolem ñaar fukki candidat finaliste yi ku nekk ci ñoom jàng benn kaamiru alxuraan ca daara ñaan sunu borom jële fi mbas mi ci barke alxuraanul karim C3S leen di xamal soppeekuwul ci neexal yi ki jiitu ci góor ñi dina am 6 millions de francs CFA ka ca topp 5 ñetteel ba 5 millions bu dee ci jigéen ñi ki jiitu dina am 1 million 500 ka ca topp 1 million ñetteel ba 500 000 francs CFA fukk ak ñeenti candidat yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog 300 000 francs CFA C3S gannaaw ñaan yi mu ngi leen di fàttaliwaat ñu gën a sàmmonte ak ndigalu kër docteur yi ngir mën a daan mbas mi ci lu gaaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. بنعمة ربك بمجنون العدل في أحكامه البديع في صنعه وإحكامه ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق وأكبرهم في الدارين حظا مغفورا صلى الله عليه وعلى آله الذين سعوا سعيا رابحا وأصحابه الذين أنشأوا عملا صالحا أما بعد فيا عباد الله اعمروا من شهركم هذا جميع الأوقات بما تيسر من الصلاة والقراءة والذكر وأنواع القربات فتسبيحة واحدة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة فيما, سو فيما سواه من الأزمان وأكثروا فيه الاستغفار من ذنوبكم واذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وصونوا قرة الصيام بما يكدر من صفوها أو يعود على الحسنات بمحوها فإنه كما يضاعف في هذا الشهر ثواب الحسنات كذلك يضاعف فيه جزاء السيئات اللهم قابل سيئاتنا بالإحسان وعاملنا بما أنت أهله يا رحيم يا رحمن الحمد لله الذي جعل الجنة دار إقامة لمن اتقى ربه وخاف مقامه وبوأ للمتقين تعرفا وقصورا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكبرهم في الدارين حظا موفورا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله في السر والعلانية ولا تشغلنكم عن التقوى هذه الدار الفانية وتأهبوا للقاء الشهر الوارد الوافد باليمن والخير والبركة وفيه قال الرسول لصحبه جاءكم المطهر الجنة تفتح في ليالي وأيامه والحور تتزين للمعتني بصيامه وقيامه ففي الحديث إذا دخل شهر رمضان amara allahu almalaikata an yakufu an tasbixi wa yastaghfiru li ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ja'alani allahu wa iyyakum min alfaizina birahmatih almuxallasina fihi min adabihi wa niqmatih ووفقنا للقيام بمراعاة حدود هذا الشهر والقيام بحرمته وأنالنا ولجميع المسلمين الحظ الوافر من مغفرته ورحمته يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين